ñi bokk ak moom ñoo ciy gis seen bopp waaye ñi bokkut ak moom gisuñu seen bopp waaye mer moomee dalaa mere yiw mii mere ma mën mii mere ñi nuy duglu hmm. te ñun suñu yoon newu ci dañ koo bëgg ne lii nga bëgg a def kat du fi jàlle hmm. parce que jaay doole gi nag ëpp na billahi min ashaytan rajim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu ak mbokki Sénégal yëpp rek téléspectateur u IYAT TV yëpp it ñu ngi leen di nuyu ak ñi nga xam ne ay auditeurs lañ ndax léeg-léeg ñu def ko audio dugal ko ci panel yi nit ñi di ko diglu kon ñooñu ay auditeurs lañ kon ñu ngi siyaara mbokk yëpp rek di ñaan suñu réew ak réew yi koy wër yëpp rek suñu borom defi jàmm jërëjëf oustaz dañuy ñëw ci li nga xam ne moom mooy euh, droit au but euh, njëkkee ko ci li nga xam ne moom mooy euh, sorti Macky Sall fële ca Sédhiou euh, mu def fa benn euh, euh, benn tukki nemmeeku waaye tukki nemmeeku saytuwaale li nga xam ne moo jëm ci économie réew mi ak ay projet yoo xam ne taxawaloon na ko fa gis nañ ay inauguration ay digg yoo xam ne digg na ko fa di digg yoo xam ne dafay commencer 2023 jëm cinq moom nag mel na ni 2024 a ko fi dese Euh, ban jàngat nga def ci euh, sortie Ousmane euh, sorti Macky Sall boobu. waaw kay jërëjëf sëñ Fallou sortie bi de ni ma ko gisee daa waroon na doon maanaam tukki tàggatoo xam nga dañ ne tukki nemmeeku. Ah. waaye mënoon naa doon tukki maanaam tukki boo xam ne day tàggatoo. Hmm. ndax daa waxoon ak sénégalais yi ne jox leen ma man naa ñu jox ko. moo hmm. dawal fukki at ak benn dese benn at. Hmm. kon yaakaar naa ne la mu war a doon mooy tàggatoo dem ci sénégalais yi. su fekkente ne lam digoon sénégalais bi muy laaj def na ko su boobaa kat ñu ne ko alhamdulillah looloo taxoon kat ñu teg la fi su fekkente ne la mu digoon sénégalais daa bari lu mu ci defut mu ne kat maa ngi leen di ndax kat doon naa jéem waaye nag fii la sama man-man yem te itam li ngeen ma euh, joxoon am naa lu ma ci def am na lu des su ko defee nag bu keneen ñëwee dana ko mën a àggale ndax euh, mbir mi moom continuité la defee su boobaa sénégalais yi danañ am xol bu sedd ci moom te itam mu fexe ba teel a wax na kat man kat mënatumaa bokk ndax kat constitution bi moo ma ko aaye te itam loolu bu ko defee ba noppi itam ñu fexe nag ba parrainage bi mu jële ko fi ndax loolu waroon naa bokk ci tàggatoo bi mu daan ne parrainage danaa ko fi jële jàkka jàngoo ku mën a noddu noddal ni ko Abdou Diouf defee woon su ko defee itam yi nga xam ne ay procès la yu jëm ci kanamam mën na koo wax su gis na ne procès yu am solo la mu mu àggale ko waaye nag gis nga ay mbébétam moom du jeex mukk nag ndax nit ku ci nekk booy da nga fi bàyyi ay mbébét wal mawtu yaati baxdatan wa rubama yakunu saa sawaxiilin muxtarima noonu la ko si Amadou Bamba waxee gis nga bariwaane nit koo xam ne dana dem ba ay yitteem bari ay soxlaam bari lool muy mbébét rek di dem waaye bis bu ko dee ne keppat mu xam ne nag mbir mi fii la mën a yem hmm. kon Macky Sall ci jëmmi boppam tukki bi nga xam ne dana da koy def naan tournée économique loolu moom ay waxu caaxaan la. parce que itam ñooñu muy digg tamit naan leen ay danaa leen jox ay deux cent milliards ak. Euh, di leen di xaalis bu bari ñu di ko gëm ñooñu tàbbi nañ ci ay nax. te mag mu xamee xam nag di ca tàbbi kooka moom kenn mënatu koo yedd. ndax ku ku la jox ma man naa nga jox ko fukki at ak benn muy doxal. mu dem ba li ko digoo lim la digoon lu ci baree bari defu ko benn a dese ko mu naan la danaa la digaat ñaar téeméeri milliards wala lu ko ëpp nga ko gëm wax dëgg yàlla ko nag daa neexu te yee ndax nag bari na ñoo xam ne ñu ngi nelaw waaye kenn mënu leen a yee loo leen yee yee yee ñu lànk waaw kon nag comme loolu sëñ Moussa Ka doon wax rek li may gëlëm-gëlëm du teema yeete li may nelaw nelaw du teema ma wala boog li may nelaw nelaw du teema yeete li may gëlëm-gëlëm du teema woote kon mbir mi daa mel ne foofu la toll waaye daal euh, tournée bii daal euh, tournée caaxaan la yàq xaalis lañ ciy def ndax saa yu waree déplacé wu danañ lakk carburant boole koog nag déplacement yi muy déplacé faaw ñu am lu ñuy dunde waaw xaalis boobu yëpp bu ko dajale woon toog ca pale bee jël loole yokke def ko ci dundu askan wi maanaam subvention askan wi est-ce que coono bii ñuy dund danañ ko ti parce que moom déplacement am alal ju bare bare bari la kon yaakaar naa ne su demee ba ca waa seeju nag di leen digub xaalis ñu di ko gëm ah kon nag waa Sédhiou nag moom euh, waaye nag waa Sédhiou itam dañ leen di jox ñuy lekk rek ñoom itam jàpp seen jàmbur parce que élection yi jàll dañoo làpp Macky Sall foofa bam nooy élection yi ko jiitu it muy élection locale dañ ko faa làpp bu ñu bëgg a kon bu demee waa Sédhiou dar ko ñaan ko yaafee ne yaafee ne mu di ko gëm ah, moom itam tàbbi na ci ay naxam rek est-ce que données yi mënta changer tamit comme euh, dañ ko gañe woon ci élection locale yi mais ci demam bi gis nañ ay euh, inauguration yoo xam ne ma ngi ko fay amal mel na ne euh, am na ay projet yoo xam ne taxawale na leen ko fi est-ce que kon niñ ko jàppee woon mën ta soppeeku tamit waaw xam nga sénégalais saa yuñ xësee doyal doyal nañ ak lu mu baax baax baax bu ñu xasee doyal doyal nañ maanaam sénégalais du la bañ ba mu yàgg mu di la bëggaat loolu sénégalais xamuñu ko ñoom bu ñu la dee bëgg ci jamono bi ngay laaj danañ la bëgg mbëggeel goo xam ne gu tar lay doon ci misaal bi may joxe rek 98 Abdoulaye Wade fii Ousmane Sonko toll fi la tolloon daanaka àggagul nag àggagul woon nag ci Ousmane Sonko fi mu toll dëgg-dëgg ndax Ousmane Sonko askan wee koy financé Abdoulaye Wade na nit ñi bëggoon nañ ko mais nag àgguñu woon ak moom nag ci di ko financé mm-hmm. de 98 foofu la tolloon sénégalais yi nag bi ñu demee ba 2011 gis nga. xam nga gënuñ ko bëgg dañoo maanaam ñi ko doon bëgg dañoo gën a wàññeeku. Macky Sall li muy 2011 nit ñi dañ ko bëggoon lool fu mu joxañ ñu dagg lu mu wax nit ñi def ko waaye gis ko bi mu nguuram gi waree jeex deux mille deux mille vingt trois bii ñu toll xoola nit ñi ni ñu ko wane ginnaaw maanaam ñi ko bañoon moom dañ koy bañ ba pare dañ koy continuer di bañ ñi ko bëggoon am na benn benn yu ko ciy bàyyi hmm. yaa ngi dégg. kon yaakaar naa ne bu demee Sédhiou ak procès yu mu leen mën a dikk alal ju mu fa mën a joxe buñ ko ne bëgg nañ la dañ lay nax waaye moom jeexal na nguur goo xam ne day jeex nag nii rek la mën a demee faaw nit ñi su yàlla nammee ñu bëgg la fal la bu la yàlla bëggee fal day def ci xolu Sénégal yi ñu bëgg la waaye saa yu ñu demee ba war laa folli yàlla ci boppam mooy rocci mbëggeel gi nekkoon ci yow ci senegal yi yàllaa koy rocc ak réew mu mën di doon rek saa yoo waree daanu rek yàlla day rocc mbëggeel googa fi mu ne nii nag Ousmane ci boppam la Sénégal yi bëgg te itam moom lañ yaakaar ne moo ko war a mën a wuutu ak moom donte nag bañ na ko ba jaral na ko lu ne nag waaye nag yàlla moom lu mu dogal ku ko bañ itam da ngay sonn rek. waaw tournée yi nga xam ne mi ngi koy def muy tournée économie euh, dem na seeju dem na euh, Thiès fa la ko commencé dégg nañ ko Ndar kon suñ déggee ni nga waxee dafay mel ni tournée mi yi muy def moom nërta nëru koo jariñ dara daal ci niñ ko mën a waxee comme kii nañ ko ba pare. waaw xanaa xanaa nit ñi dar ko xolam di féex hmm. Hmm. xanaa nit ñi dar ko xolam di féex waaye moo war naa xam ne bu doon ay élection lañ amal suba suba suba war naa xam ne sax day daanu parce que gis nga li ma doon wax léegi maanaam gis nga boo waree daanu xam nga élection locale moo jiitu mais élection local gisal ni ñu ko gañee élection législative ñëw gis nga ni ñu ko gañee encore te hmm. élection législative bu jaaroon yoon bu jaaroon yoon na mu war a jaare yoon kon majorité du ko am te kon xam nga ne euh, kii nga xam ne moom la jël di di dugal justice di dugal ñi di génnee ñi ñooñee mu dugal am na koo xam ne moom lañ yóbbu euh, cour d'appel kooku bi bi nga xamee ne Déthié ñëw na daan na ko maanaam euh, liste yi kii yi nga xam ne moo jóge fële procès verbal yi jógee ca côté Matam ak yooyu dañ ko bëgg a saytu daa lànk hmm. kon xam nañ ne liñ déclaré ci ay député amuñu ko hmm. te itam opposition bi topp ñu leen ci loolu parce que itam dañoo bëgg réew mi am jàmm ndax moom li muy def Macky Sall wax naa ba tàyyi ne benn yoon la mas a muy élection muy 2012 amul beneen élection boo xam ne gagnéwaat na ko mu jaar ci yoon amul ndax bu dee 58 pour cent la am ba mu koy wax itam wóor na ko ne amu ko loolu moom leer na ko naññi ndax élection bu daan am ci guddi gi lañuy xam ki gagné. Hmm. ndax 2012 ba muy gagné day réew mbedd mi ci boppam ñoo ko wane ne gagné nga. waaye 2019 bi mu nee gagné na daa mel ne Sénégal dëjë fi xew kon xam ne ne gagné ba pare législative yi bu ko leeroon na gagné na dana ko teel a tëgg waaye bàyyi na ba am bu yàgg. di xool tiktak yu muy teg pour war moom war koo mën a gañe ba mu defee élection itam gis nga dañ ko caa gañe législative ñëw mu def ay parrainage dindi ñu bari ndax loolu mu ne am na ko hmm. ci ci ay ay ay 82 députés loolu amu ko yàlla xam na ne amu ko parce que itam bu bàyyi woon bugaan bokk 82 députés yi ah 82 amu ko wallaahi amu ko bu bàyyi woon bu ko tegoon ci normal ah. bàyyi ay bugaan ñoom bokk ay xam nga bugaan ci boppam mën naa bañ a am parrainage yu mat Pape Djibril di ko am loolu xel nangu na ko mais gis nga dafa am yoo xam ne ay tappale la waaye mbir mi bu ko tegoon ci yoon yàlla xam ne ne 82 députés yi muy wax amu ko te bi mu ko tegut ci yoon it amu ko xanaa kay dañoo bëlëf bëlëfee mbir yi gaaw kii ko comme nee na moom moo yor doole ndax moom armée la yaakaar waaye li ma ko waxoon keroog fii ci sa émission rek laay dellu waxaat gis nga armée bu dajale ko ba teg ci wetam jàpp ne doole la koy may gis nga nguur ba demee bu wiiru ci armée rek mooy nguur ga yàqu na nguur ga daanu na parce moom ay principe moo koy daa dem ba nga xam ne armée rek ci la wéeru ci takk der yi dong wéeru kon googu nguur nguur nekkatu fa. nit tamit ñi nga xam ne ñoom la ko sekkal ñoom ñoo ñoom ñoo laaj loolu parce que tamit bu fekkee ne ku mel ni Ousmane Sonko euh, mën nañ koo citer mooy principal opposant te jamono bu nekk euh, dafa mel ni jàmm doxul seen diggante ay manifestation ay euh, revendication yoo xam ne daanaka yu ci bari fa muy mujjee mooy force de l'ordre yi génne est-ce loolu moo tax ñu nekk ci rythme boobu ñoom ñaar tamit. waaw xam nga force de l'ordre yi moom gis nga mbir mii am Sénégal moo leen gën a naqari foofu ñoom la gën a métti parce que xoolal bu ñu nee tey benn problème daa am ci réew mi gis nga coono bi ñu ciy daj coono bu méttee métti la ñuy daj parce que damaa jëlee la sax ñuy sànni ay gaz lacrymogène waaye ñoom seen jëm bopp sol li ñuy sol rek dèjà matériel la ba pare dafa diis gana nag boole koog seen dàll yi léeg-léeg ñu bëgg cee ay balak yooyu ba pare itam nekk ci naaju tàng sol ay ay wu nga xam ne coono bu méttee métti la ñuy daj gis nga yàlla xam ne ne takk déer yi li ci ëpp ci ñoom buñ sañoon sa sawaay daanu parce que coono bi mu leen teg dafa ëpp mais lii musu fi am parce que ci benn nit boo gisee nag ñu naan euh, Ousmane Sonko maanaam moo nekk ki nga xam ne moo nekk ci bopp bi ci opposition mooy chef bi waaw boo gisee liñ koy teg musuñu koo teg benn doomu aadama waaye nag nguur yañ daan dajal bu njëkk daa bokkut ak gii parce que gii moom li ma waxoon rek moo fi raw na kiif kiif benn lañu parce que itam bu fekkee ne da nekk ci am réew bañ wujj xam nga mbir gis nga yàlla buy defar mbir nga ñëw ne ko lii du fi amee ah. xam nga bi Abdou Karim ne pël daf ne kii kan mën na maa gàllankoor xaaral ma ne ko yaakaar ne dafay bëgg a toog nag ba ba 2035 ndax loolu la programmé woon léegi bi kooku jàllee mu daaneel ko bant dëmm wut kenn sëqatut bi kooku jàllee mu ñëw ci Khalifa Ababacar Sall moom itam def ko noonu ba jàpp na njariñ la koy jural yàlla indi ku leen gën a garaaw ñoom ñaar ñëpp nag hmm. indil ko koo xam ne moom sañu koo tëj mi ngi ci réew mi di def lu ko neex sañu koo jàpp te looloo ko gën a naqari xanaa xamoo ne xanaa xamoo ne Macky daa mere sénégalais yi. dafa mere sénégalais yi gis nga la amoon 3 mars. sénégalais yi ko fal di dafa sénégalais yëpp la mere ku ci bokk ku ci mm. bokkul da laa mere. Ah. parce que boo gisee ni muy fayantoog sénégalais ak nii muy def rek. Mm. da xam ne kii am mer la ëppal sénégalais yi. fi mu ne nii daa daa xam ne nguur gi intérêt la. sëñ ca mm. jékki na day bàyyi ndax intérêt dong la. Mm-hmm. ñi bokk ak moom ñoo ciy gis seen bopp. waaye ñi bokkut ak moom gisuñu seen bopp. waaye mer moomee dalaa mere yow mii mere ma mën mii mere ñi ñuy duglu Mm. te ñun suñu yónnee wu ci dañ koo bëgg ne lii nga bëgg a def kat du fi jàlle mm. parce que jaay doole gi nag ëpp na xanaa xamoo ne mbir mi nga xam ne moom la jëkke woon ci Abdou Karim euh, def ko ci Khalifa Ababacar Sall bu ko jëkke woon ci Ousmane Sonko day réussir xamoo bu ko jëkke woon ci Ousmane Sonko te laalagun ñee day réussir parce que duñ xamagoon tappale yi mais bi ko defee ñi ci lañ xam ne kii kat day tappale dong mm. bu fekkente ne daa bëgg a jàpp kii nag booy boo Sénégal yëpp gar ci seen bakkan ne ko du fi amee Macky Sall li ko gën a naqari loolu bokk na ci lu ko gën a naqari mm. waaye da koo mere boole ñu ci ñun di suñu yoon waaw gis nañ Ousmane Sonko moom ci boppam bind na benn lettre bu gudd sax euh, boo xam ne euh, mën nañ ne cinq pages yoo xam ne daf koy jagleel communauté internationale bi euh, ndax lettre boobu yow jàpp nga ne dina dina dina am benn jeexiital ci Macky Sall mi nga xam ne moo tax mu bind lettre lettre ni ñu ko waxatee lettre boobu noonu ngir boole ko ak communauté internationale bi wax leen mooy kan. waaw kay jërëjëf waaw lettre bi de bu fekkonte ne da koo bind ci wolof. Hmm. wala mu yemale ko ci suñu réew sëfun Macky Sall. Ah. waaye comme bindi na ko ci tubaab ñu def ko ci anglais Macky Sall tubaab yi da gën a respecté. respecté ah. wu Sénégal yi ko fal de. Hmm. maanaam tubaab yi ci boppam la respecté. léegi na lettre boobu yaakaar naa ne bu ci tubaab yi jotee dana am benn jeexit parce que Macky Sall moom liñ naan malaaka moo gis am na malarti moom tubaab yi ñooy malarteem ndax ñoom dong la respecté. mais ñun ñi dëkk ci réew mi nag faalewuñu faalewul kilifa diine yi faalewul keneen moom faalewul ñi dëkk ci réew mi tubaab yi la jox cër ñoom la respecté léegi nag Ousmane Sonko leetar boobu mu def nag am na solo ah. parce que wax na ak sénégalais yi hmm. waaye sénégalais yi ñi mën a jàllale information bi dëgg hmm. journalistes yi ci boppam xam nañ ne dëgg gi fii la féete mais ñi ah. muwuñ ko wax hmm. ndax ñu ci baree baree bari gis nga leen ñi ci daan wax dëgg ku si néew ku mel ne Pape Alé Niang gis nga ko coono yiñ ko ci teg fitna jiñ ko teg te teguñu ko fenn lu dul jaay doole rek léegi nag yeneen journaliste yi nga xam ne jënd na leen te pourtant nag Pape Alé ma xamal la benn affaire xanaa xamoon ne Macky Sall recevoir woon na ko te lam bëggoon ci moom bu ko amoon kon nag ni Pape Alé du am benn problème journaliste yi jaay seen ngor nag nañu xam ne Pape Alé liñ leen jox ñoom jox nañ Pape Alé lu ko ëpp mu dese ngorom kon ñoom waroon nañoo xool ci loolu hmm. waaye gis nga euh, rajo yi ci boppam nga xam ne ak journaliste yi nga xam ne ñoo war a seen liggéey normal ñu ci baree bari dañ leen di déplacé sax di leen yóbbu ci yeneen i bërëb wala yeneen i kii parce que bëgguñu ñu wax lii xew Ousmane Sonko nag yàlla da koo dimbali bi réseaux sociaux yi amee ah. ci la ko yàlla dimbalee lool ba lépp loo xam ne xam nga ñu bare bari sax sama classe daanaka daanaka diglootuñ rajo hmm. ñoom lu am ñu ngi koy xoole ci internet bi daanaka information yi bari fi lañ koy xamee ah. te bu fekkente ne dañoo baare ñi war a wax ñeneen ñu wër ta wax génn hmm. man mi kenn xamuma woon waaye bin jaayee doole ñee ba sakk fan war a waxee hmm. léegi sañ na wax ku ma sañ a téye sañ naa wax keneen sañ naa fi mu ne nag ñi daan chronique di ko def ci tubaab fi mu ne nii donga daara yi ñëw nañ sax far ko nangu ci ñoom lu ko waral mooy dañoo gis dëgg nëbb ko mhm. donga daara yi nga xam ne ñoom du ñu nëbb dëgg wala taktumu shahadata ma yaktumha fa innahu aasimun xalbu boroom mhm. xol bu feebar rek mooy gis dëgg ko nëbb mhm. kon nag dongay daara yi ñi nga xam ne ay dongay daara lañ te jëfe la ñu jàng ñoom nag duñ nëbb dëgg de buñ ko gisee rek dañ koy daal di wax loolu nag dimbali bokk na ci li dimbali Ousmane ko mooy donga daara yi nga xam ne ñëw nañ dugg ci mbirum politique bi dimbali leen baa xam nga ne am na doonga daara yoo ànd ak Macky Sall tamit di bëriwul ah. boo xoolee maanaam <laughs> majorité bi waaw ñi ngi féete Ousmane Sonko xam nga lu tax waaw mooy Ousmane Sonko da maanaam dafa nuróog ñoom maanaam mm. daa nuróog ñoom xam nga Ousmane Sonko boo dee xool da nga naan seen daarala la mm. te gis nga euh, bi mu woowee seen daara yi ndaje moom mu gën a réussir fuuf ndaje mi mm. Macky Sall organisé woon gis nga bi ndaje mi jàllee ban xëyee suba lañ tàmbalee di woowaat ay seen daara ci suuf xam nga information yooyu ñun jot nañ ci di leen woo ci suuf am na ku bokk ci ñun koo xam ne teewoo woon ndaje mooma waaye la ñuy wax dara maanaam ëmmu dara lu ci fas sa xànca moroom waxi tappale rek danañ leen jox lii am na ci ñoom koo xam ne depuis ngeen def seen affaire ba léegi moom day mi ngi mi ngi jàppale sëriñ daara it mooy Pape Modou Fall mu nekk Jurbel mi ngi loolu ay ay tappale xam nga loolu dañ leen a nax sax nag ña fa demoon ñi ngi jot benn information ci benn internat boo xam ne eh, joxe na fa ciment bu bari pour ñu kii waaw loolu loolu moom ay ay nax la waaye gis nga seen daara ñu yewu lañ gis nga fi mu ne nii sëñ daara bu ñu nekkoon téeméer daanaka kenn lañ ciy mën a ñoddi wala ñaar ñi ci des ñëpp nag ay principe moo leen boole ak Ousmane Sonko maanaam dañoo am gëm-gëm hmm. kuy am gëm-gëm nag bokkut ak ki nga xam ne amul gëm-gëm xam nga ki xool intérêt am hmm. bokkut ak kii xool intérêt réew mi hmm. te boo xoolee président Ousmane Sonko ñi ànd ak moom maanaam juxu ci kenn dara wér sens contraire la sax maanaam ñi nga xam ne ñoo ko topp ñooy wëlbatiku di jël seen alal di ko jox waaye moom joxu leen dara te bu dee ko doo nga daara yi doo nga daara yi mën nañoo discours te luñ discours dañ koy indil ay addila yu xam nga kiy wax ci xam-xam nga xam ne lu mu wax mën na la ne yonente bi alayhi salaam wax na ko wala alquran wax na ko kooku ay discours am mooy gën a jàll kon ñooñu kenn dëqaloon ne discours waaye dañoo fekk li doon nelaw ci sénégalais yi Ousmane Sonko ñëw yee ko ñu moom gis nga nag bala ñu koo xam nag ñu jox ko réew mi gis nga bu ko joxoon réew mi ñii di ko xas ko ànd ak moom kon yaakaar naa ne ki nga xam ne dangaa ànd ak moom bokk ay gëm-gëm bokku te ki nga xam ne alal lay jël di joxe te alal ji muy jël di ko joxe kat alalu sénégalais yi la